wallaay ndeysaan waaw Amadou Doufouri ah actuellement alhamdulilah je me sens bien maa ngi sant yàlla waaw wér am na wér gu yaram mooy loolu mais xibaar yi nga xam ne euh, jot naa rot tey ci bëccëg bi ci joueurs yi mën naa ni jamono ji trêve internationale lañ nekk maanaam joueur dañuy dem ci seen équipe nationale soit di football amical wala qualification ci seen i compétition ci noonee nag xibaar gi wàcc équipe nationale dañ koy jiitaleeg ci kan Kylian Mbappé moomee ngeen gis noonu ne ca ginnaaw Kylian Mbappé nag équipe de France Didier Deschamps moom la nommé capitaine équipe bi. après ba Varane jëlee retraite am international Loris jël retraite am actuellement Kylian Mbappé ñoom Griezmann ñoo fa des mais Deschamps Mbappé la décidé comme ni PSG Galtier jox Mbappé capitaine actuellement football français daal dañoo jël lépp dis ko ci euh, ndodd gone gii nga xam ne mën mën gëm naa ne antal na ko nag il mature day jël ay responsabilités am na fulla am na fayda te doo ko gis ci lu ñàkk fayda moo tax yiñ koy teg nii yëpp mën gëm naa ni mën na cee réussir mu ngi noonee mais ñenn ñi nag d'une part bett na leen ñi naan le fait ñu bàyyi fi Griezmann et tout mais tamit man dama jàpp ne est-ce que ëppul caractère ci wàllu football Griezmann est-ce que jamono ji ëppul niveau Griezmann est-ce que jamono ji euh, leadership bi ne ci moom nekk na ci Griezmann loolu tamit. faaw ñu bàyyi ci xel capitaine faaw ngay faaw nga doon leader de engagé wu carrément situation yi lu metti métti nga jëm cee génn équipe boo xoolee équipe de France ba euh, Argentine sonné ah ba Argentine sonné la yoon Mbappé moo leen ci génnee loolu yëpp ay point la mu ngi noonee daal euh, ma leen xaar ci commentaire yi ba xam d'accord ngeen ci mu doon capitaine ou pas waaw bu loolu weesoo nag Erling Haaland beneen compère beneen beneen beneen waayam bi nga xam ne moo ne ci côté mën naa ne ëllëg ay rival la ñuy doon sax moom. dafa blessé match bi nga xam ne dox na diggante Norvège ak Espagne finalement du ko football Eric Ana dafay mujjee ñibbiwaat waaye ci dernier match bi nga xam ne City football na ko ci la am blessure bu ndaw ndaw boo xam ne nii da ko empêché mu football match bi war a dox diggante Norvège ak ki ñu naan euh, Espagne Eric Kane nag jamono ji mën naa ni Tottenham bu ñoom Pape Matar jamono ji pare nañ pour jaay ko waaye ku tegul cent millions d'euros ci table bi. duñ la ko jaay loolu la Tottenham euh, génn wax ko ci euh, l'international anglais boobee euh, mu ngi noonu ba xam yéen yéen a koy xaar Real wala baax sax ban club ngeen ko yéene en tout cas yoon la mu jugee Tottenham gële ba léegi jëlagul trophée c'est c'est c'est malheureux quoi mu ngi noonu daal Habib Diallo actuellement moom lañ nommé meilleur joueur ci mois bi nga xam ne moom la weesu fële ci Strasbourg ci ay 14 buts mu doon loo xam ne nii vraiment c'est énorme Habib Diallo un jour à suivre nañ xaar ba xam Aliou Cissé dina ko may temps de jeu mu wane boppam ou pas may na xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee Abdou Diallo Habib Diallo moomee euh, ci jaloor yi nga xam ne ci la nekk noonu bu gars yi bu loolu weesoo comme d'habitude s'il vous plaît waaw daw leen sama chaîne YouTube ah, ngeen abonné ci ñi nga xam ne abonné guñ boo duggee sama compte TikTok bio bi rek kon TikTok bi fi may def vidéo yi da ngay gis benn logo noonu rek logo YouTube bi boo ko bësee tag da lay yóbbu directement ci chaîne bi nga abonné activer cloche yi bu ko defee benn suñuy vidéo dootu la rawati mais surtout gars yi ngeen di liker di commenter ko partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yenn vidéo